waaw mais Kër Mbay Fall ak euh, yoonu Kër Masaar bi dafa garaaw ndax fii guddi doo fi mën a ñëw ndax choc bi man maa ngi koy dégg bi bi ñëwee bi mu nee dël boobu maa ngi maa ngi sa biir néeg mais bëgg nañ ñëw mënuñu ñëw ndax ragal daal du affaire ragal sax mais Kër Masaar croisement Kër Masaar moo garaaw oto yi sax da ngay gis bandi yi dañuy ñëw di leen kar di di koc oto yi di di di arrêté oto yi di nangu seeni xaalis wala seeni portable ak affaire yooyu te man xaw lan moo jar loolu fii Kër mbay Fall dafa waroon réussir ak croisement Kër Massar ndax gis nañ croisement Kër Massar li mel mais waroon na gën a réussir mais seet nañ ba seet daal kenn ñemewu fi guddi gi moom kenn ñemewu fi waaw bon mi ngi am ay côté 11h minuit minuit moyen daal minuit moyen mais après bi ma nee dël bi mu nee dël ñu bëgg nañ ñëw mais mënuñ ñëw après dama dama dégg ne ñu ne gendarme yi ñëw nañ fi bëri na Kër Mbay Fall noonu la mës a mel man xaw ma a am si tali bi xaw ma daal mais jaaxal na ma daal en tout cas metti na trop ndax man maa yore débiteri bi nekkoon si biir station bi mais par guddi sax bu may ñibbi du ma ñeme dem mais damay forcer ndax góor laa moo tax aw ma dara lu may ragal mais chaque jour nga dégg ku këf saaku jigéen wala nga agressé góor dugg ci biir àll bi te doo si mën kon ban appel ngay lancé ci insécurité bi am fii ci kër euh, croisement Kër massa waaw mooy sec ñu ñu def sécurité jar na sax ñuy jël ay nit di ñëw di taxaw ay 8 personnes wala 10 personnes ñiy taxaw si tali bi bon di di taxaw ba fajar pour sécurité ñu xam ni nit ñi sax dinañ mën a ñeme guddi gi ba ba dinañ mën a ñeme guddi gi daal waaw ndax foog mu war a am sécurité fii ndax bu amul sécurité. kenn du fi ñeme jaar jaaykat yi sax dañuy teel a wàcc loolu du yoon. soxna si loolu moom pour ñu wax si moom dina waaw dinañ ko lool ko waa ñu fi lañ nekk di liggéey mais oto yi fii luñ fiy wàcc si pont bi ak arrêt bi dafa jege arrêt bi war nañ ko mun a déplacer mu gën a avancer si kanam waaw parce que dafa jege fii oto yi fii luñ fiy daw dafa bëri quoi lool moom bu ñu si gars yi mënoon dimbali moom ah dina baax loolu moom wax dëgg fa yàlla chauffeur yi tamit dafa la si ndànk waaw man daal loolu daal maa ngi koy ñaan daal gars yi gars yi jàppale ñu si daal pont bi arab ñu jëm ko yóbbu ci kanam tuuti parce que digënde bi ak arab dafa jégué oto camion gi yëpp lu leen neex lañuy waccé fi té lool ma maara day taale mën dajanté ak lu ne wa bi limi am soog dafa bëri lool limi am soog bëri na dóoru yi auto yi ñëpp wa gaay dal bu ñu mënon jaabalé ci lool dina baax parce que bo xolé fi amul montage policier amul dara chauffeur lu leen neex lañuy dawalé fi lañuy tourner fi fi nga fi tamit kën du fi tourner fi digënde bu gàtt bi nga gis chauffeur bu ñëw fi tourner bo la auto mbëkkee da ngay perdre bo mbëkkee nit nit ki perdre waaw gars yi tamit loolu war nañ see mën a dimbale de wax dëgg fa yàlla loolu daal laa amoon si lu may sànni daal waaw ok merci ah. kaaw kaaw. waaw la ma fekk euh, démb ci guddi sax soog bi parce que man tamit bon fii laa nekk maa yore maa yore sécurité station chinois yi mais démb dama jékki-jékki rek dégg tël bi ma dégg tël man xaw ma ban côté la ma jékki-jékki suivre côté bi daal di daw bi may daw. laa fekk minicar bi daanu oto bi tamit doon ñëw am benn dof bu mu fekk ci arab bi mais daf ko waaye mu bi ma ñëwee xool dof bi gis na man kooku pour man sax dafa dee am benn liir boo xamante ni sax bon si oto bi ñu ko génnee man bi ma ñëwee damaa yaakaar noonu sax ndigg li ndigg li moom moo xaaj mais après ñu euh, bi ñu dem fekk foofu yëpp dafa doon deret ci liir bi man boobu laa xaw a doy waar quoi ndeke bi ba kii ne liir bi moom do xaa dafa dafa xoosu euh, ci tànk bi ak ci ndigg li mu mais xam naa ni euh, liir yàlla may na ko daal parce que soog boobu ni mu mel démb boo fekkoon ñu ñoo mujjee yëg ci kaw nii di génnee nit ñi parce que oto bi nee nañ dafa jógee fële di daw mais nag li mu doon daw moo bëri nee nañ léegi bu am na oto yu mu romb du mu doublé foofu quoi gars yi bi ñëwee fi ñoo ko wax ñu ne mooy oto bi daf ñu romb doublé ñu ñu ñett ni léegi am benn bu muy ñëw moom it xëy na tamit doon na daw moom it bi di wàcc waa ji traversé ci muy def ni mu doon dévier oto bi ak dévier oto bi ci la nag oto bi daal daw ci la oto dafa këpp ba pare di daw nii ci côté bi léegi nag waaw bi mu këppoo ba pare ba taxaw ñun ñoo yéegaat ci kaw ubbi bunt yi ci jaarale oto booy yu ay ci biir ah ñëpp ñu génnee leen ci biir mu ngoog mais foofu daal am na mort wala waa benn koo xamante ne moom dof la mais bu doon bëccëg moom day doy waar parce que foofu bi la nekkoon ci guddi gi xam naa ne oto bi day jékki-jékki oto bi na xës ci kawam mais daal loxo bi daal wax dëgg yàllam yaram yi daal xam naa loxo bi moom mokk na rumbux ba bi mu tëddee moom dina def gémmiñ gi mënul wax man bi ma ñëwee xoolaat ko laa ne kii wérul sax mais bi sàppoor ñëwee daal bi ñu koy tàllal loxo bi yuuxu na fa yuuxu yoo xamante ne daal mu ngo parce que oto bi da koy bett xam nga accident bu la bettee doo ko foogee beneen affaire la ndax sapeur gaaw nañoo wàllu si. waaw waaw moo xaw a doy waar bon man fii dama am yu bëri dama koy gis mais nag dama xamul fi ñuy jóge la dama xamul dañ leen di yéex jot dama xamul nag circulation la mais daal dinañ ñëw mais avant ñuy ñëw daal bon day xaw a mu ngoog daal maanaam kon sog yi daana fi faral di am lu bari sog yi kay foofu noonu foofu rek foofu noonu foofu gis naa fa sog ay fii ci autoroute bi foofu foofu noonu foofu man xaw dafa am rab xaw lan la mais da ngay gis am na koo xamante ni benn pa oto yi ñett fekk ay lu mat cinq sog yoo xamante ni daal ay mordel la ay mordel la am na benn bis bu doon lakk fii mu ngo parce que foofu léegi arrêt bi bon dafa am yoo xamante léegi dañuy jógee Dakar guddee bon jël oto Tëngéej duñ nangoo wàcc fële ci arrêt fii la ñuy bëgg oto bi wàcc la ñu traversé pont bi te pont bi autoroute la léegi nag traversé boobu day fekk oto bi jógee nee di daw fekk yow pour yow da ngay yaakaar ni agsi nga boo taxawee rek oto bi day ñëw moo tax foofu moom beneen affaire la xam nag benn solution lañ mën ci mu ngoog te sappoor tamit wax dëgg yàlla comme ni ñu def sappoor yi nekk ICS noonu lañu waroon def ci rond point yi waaw indi sappoor bu nekk mu def ci rond parce que da soog boo xamante ni man démb damay woo gars ku ma ne woo sappoor comprendre nga mën na leen mu ngoog benn auto police laa gis ci guddi gi man maa ko arrêté bi ma ko arrêté maa dem fekk waa ji fi mu taxaw ne ko dafa am soog bu am fii nit ñaa ci biir oto yi mënuñoo génn mais léegi doonu dimbale nga woo sappo parce que ñun ñëpp ñu ngi woo sappo mënuñu ko jot waa moo mujjee defaat demi tour ah, ah, taal sirenam billahi wal kitab ñaari booy ñoo yor oto bi ñoo taal sirène bi demaat ci guddi gi uti yoonu LG Mbao ñoo demaat nag leneen led naa bi ci la led naa bi ñëwee ànd ak ah, ci ñu toog après sappoor soog ñëw mais franchement parler daal wax dëgg yàlla mu ko let naa bi daal bon bi nekk euh, jeune France man xaw tur bi quoi mais wax dëgg benn booy la mais moo fi ñëw ànd ak mu ngoog ñu nekk ci affaire yeeg yëpp sappoor ñëw ñu évacuer booy bi ak liir bi soog a ñëwaat jëlaat am na benn sappoor bi sax bi muy ñëw maa ko am na benn camion tamit bu ñëwaat mais daal war nañu xool tamit situation boo xamante daal dinañ mën a teel a jot sappoor et puis sappoor